toog ak sama mag mag gi di Mbaye Babacar namoon naa ko loola ah, borom Jurbel di ko naan déwénati di ko baalu àq bu baax a baax nuyu naa la Mbaye. war nga baa baalu àq de li nga may li nga may won ci kër gi <laughs> war nga baa baalu àq bu baax a baax a baax a baax baal naa la àq. comme que comme occasion tabaski wala korité rek la ñu am la ñu am occasion pour jéggulu woon te àq baalante àq mais dafa war dafa war di am chaque jour na mm-hmm. baal naa la parce que àq dafa sew. dafa sew mhm. waaw baal naa la àq yow tamit euh, maa lay baalu àq. Mhm. sama rakk ju baax ji mbàkke mbàkke bi nga xamante ne bii macha allah nee naa la commencé génération bu nekk bàyyi bàyyi na la xel. Mhm. ndax ab boo juddu ab boo taar ab boo maye man sa liggéey baax yaru jox ñépp cër yar na sa jàmb yàgg tey dañoo war a waxante lu baax. kontaan naa ci yow bu baax a baax wante maa ngi maa ngi maa ngi baalu àq bu baax a baax ñépp ñi nga xamante ne bii ñi ngi ñuy topp ci Leewtoo TV lépp la nga xamante ne bii mës nañ ko fee wax mu naqari nit wala lépp ma nga xamante ne bii mës nañ ko fee wax te du noonu mhm. ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax leen baalu àq wante ñu ngi leen di baal àq di ñaan tabaski ñu fekkee ko ay at yu baree bari barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam amin amin noonu laay def da ànd ak partenaire bi di huile j'adore mhm. ñu déet ànd ci Eau ndox mu sell bi gën baax ci xale baax ci mag ñu naan ko Eau Caillard mbay Babacar ndox bi ñuy aar ba tax noonu laay def ne sadaax ci journal suñu làmb ba mu xëyee ci xëtam mu njëkk nag combat bay dox ci diggante Balla Gaye ak Bombardier tuddee ko le choc des rois vivement rek le 31 juillet nar a am waaye Bombardier mu ngi xëy di artu xale ba nee na aucun adversaire ne m'impressionne maanaam liggéeyu benn adversaire am jaaxalu Balla Gaye 2 ma ñëw di ko tontu moom la am daa sox du bàyyi kenn nag da jàmmam. mu ne ko nag yow mi nga xam paa nga man maa la yóbbu à la retraite Mbaye Babacar. loolu la ko bo loolu la wax nee na ko yow ñëpp nangu nan ne paa nga ci làmb ji su ma la jàppee maa la yóbbu retraite solo la li nga xamante ne bii mooy grand boobu ngay dem ca jàkka ja di jiite wala ngay wala ngay doon naay wala ngay noot. Mm. nee na ko lool la wax incha allah nee na ko heure bu ma jàkkaarloog yow incha allah sama combat bii. du niroo ak combat bu njëkk ba ndax combat bii maa ko bëggal sama bopp def ci li ma ci war a def yépp te bàyyiwuma ci dara lépp la nga xamante ne bii war naa ko cee def rek def naa ko ci incha allah te dinaa la yóbbu retraite Bombardier tamit nekk mbër ma nga xamante ne bii wax dëgg yàlla demul benn xale bàyyi naa la ak yàlla comme ni ko waxee sànq euh, nee na ko suñu combat bu njëkk ba maa la daanoon wante dinaa la daanaat kon ñu nar a gis le 31 juillet incha allah Bombardier Tapha Bombardier ki nga xam ne moom mooy euh, Balla Gaye combat bu neex combat bu combat bu nar a tàng wante face à face yi bëri na trop. Mhm. tàng na ñaari fan yu nekk bu Gaston woo leen jàkkaarloo ñoom dañuy dem ba pratiquement dootuñu amati sax lu wax. Mhm. wala la ñu ca face à bu njëkk ba su ñëwaatee loolu loolu la wax hmm. mu ngi nag ba tax na bañ ginnaaw bañ bëggee sauver yooyu la combat di dox ci Balla Gaye B52 Siteu Papa Sow waaye kasaalikal Tapha ak ki nga xam mooy Pape Abdou Fa borom Paf production Pape Thialis Faye borom Leewtoo production la démb ak Fallou Ndiaye. ki mhm. nga xamante ne nii moo jiite amateur yi dem nañ fee ca gouverneur ba fas yéene waxtaan ak moom. al Assane Sall la gouverneur bay wuyoo moom moo dalal ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo amal ay làmb yi nekk suñu kanam ñu mën cee jàpp ñooñu nga xamante ne bii ñoom nga limi sànq wante record nee na promoteur yi bi ñu demee. seet ñi ki nga xamante ne bii mooy gouverneur gouverneur dalee na gàntal nee na leen li nga xamante ne bii mooy làmb mënul am tey mënul am ëllëg wante foofu nag dañu xaw a wuute ak ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy waa suñu làmb suñu làmb dañoo dal dañoo jox micro ki nga xam ne mooy Pape Abdou Fall mi jiite euh, promoteur yi Pape Abdou Fall nee na gannaaw ba ñu dajee ak gouverneur Alassane Sall waxtaan ak moom ba pare gouverneur li mu ñu wax mooy incha allah dana dem seeti ay supérieur waxtaan ak ñoom lu mën di xew tey dana leen létt mbaa mu firi leen loolu daal la ki nga xam ne moom mooy Pa Abdou Fall teg ci suñu ay loxo. Mhm. ci noonu nag kii di Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi la muy xëy di xam ne ci choc bay am diggante Siteu ak ki nga xam ne mooy Papa il faut nee na man mën nañu xaar. Mhm. kaw ci combat Papa Sow te defulee attention. nee na ñu ngi jëm ci combat bu metti combat bu neex combat bu tàng combat ba nga xamante ne bii ñaari ndaanaan la ba pare doon ñaari ñaari ñaari xeexkat. noonu loolu moo tax mu ne kaawoo mën na cee am maanaam dóor mu wàcc dóor mu daanu nee na mën na cee am nee na nag Siteu li ko arrangé ci combat bi bu xeex na xeex à distance bu mu jege Papa Sow di xeex ak moom parce que Papa Sow mbër la ma nga xamante ne bii boo ko jegee rek bu la jàppee làmb ji mën naa jeex nee na Papa Sow tamit dafa am ci lu mu jógee am fu mu am fu mu war a teg bëtam kon moom tamit war naa def le tout pour génn ci làmb ji ak li nga xamante ne bii moom mooy victoire combat ba ñuy amal war a am la premier août waaye démb nag ca koñam Siteu moom doon def ëppam pressam le mhm. phénomène de Lamsar journal bi lañ koy xam ne Siteu tas na fee jàmm gën rajax maanaam mbooloo ba ko wujj démb ba macha allah. waaw gis fa mbooloo ba nga xamante ne bii wax dëgg yàlla ni ko ni ko ni ko waxkat yi di waxee. foo mhm. sànni mbàttu mu tag démb foofu ca jàmm gën. Siteu wax dëgg yàlla la fa génnee ci mbooloo wax dëgg yàlla bu ko dogaloon arène nationale day fees dell. Mhm. loolee tax euh, Siteu euh, bàkku bi mu waroon a bàkku sax euh, pratiquement mu jéewu ko bàkku mën na ne tuus ñu mu waroon a def mu jéewu ko tuus tëgg mais tëggkatam bi nga xamante ni moo koy tëggal ak woykatam bi koy woyal di mbaaroo wax dëgg yàlla yëngal nan li nga xamante ne bii mooy public bi tëggkat bi tëgg na lu neex. mbaalu woy na lu neex macha allah sa fan si kontaan nañu bu baax a baax si tanam ba mu jëlee kàddu ko euh, dalal nañu nga xamante ne bii mooy ay xelis fansam ak ay supporters am na leen li ma leen di woo mooy ci jàmm ak salaam non à la violence ngeen ñëw ci jàmm ak salaam ñu dem stade ngeen yëngal ci kaw ma yëngal ci suuf ma jàpp gan gi defal ko bagage ni ñibbi si waat fa nga xam ne mooy jàmm te noonu nag incident am na fa lu ñuy naqarlu ñun reporter yëpp mhm. cat ba kaw ba suuf journal boo ko waaye man lay Ndeye Mbacke Diop Mbaye Babacar ñun ñoo koy wax. moo mm-hmm. Mor Antas borom sans frontière dañ fa agressé dóor ko fa nangoo ay matériel am trois téléphones portables ak appareil bi ñu doon filmé mu nekk lu ñu ñaawlu. mu nekk la mu nekk jëfin ba nga xamante ne bii képp kuy yëngu ci làmb waroo koo rafetlu ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy kile message làmb ji ñi nga xamante ne bii seen bëgg-bëgg. seen yitte seen seen seen xëy ak seen gont du lenn lu dul wut information làmb jox ko amateurs yi ak internet yi wax dëgg yàlla kenn warul leen a fayee lu mel noonu te Modou Anta suñu naataango la ñu ngi koy masawu bu baax a baax a baax di wax ñi nga xamante ne bi ñooy nekk ci open press yi wala ñi nga xamante ne bi ñooy def jëfin ñu ñaaw ñu jéem ko bàyyi te incha allah am nañ yaakaar ne yoon mi ngi def liggéeyam te képp kuñ ci jàpp da xam ne sa yoon nekku ci mm-hmm. te noonu nag Boubacar ñaam bañ reporté combat ba nag perte énorme yeneen yéen ca ja am. ginnaaw ba mu investir nga xam ne mooy 2 millions fas na koo ñàkk. moo jiite euh, Ama Events moom Boubacar Niang war na tëgg fële ca Mbour war ki nga xam ne mooy Ada Fayor ak Boy Mbour. Mhm. la ko war na tëggee ca na nag euh, investissement yi nga xamante ne bi jot na koo def ci combat bi dem ba combat bi jege ñu annulé ko wax dëgg yàlla dañ ci perte. dëgg yàlla nekk na xaalis ba nga xamante ne bii xaalis bu bare la li war ñu annulé ko nag mooy euh, manque de sécurité mm-hmm. xam ne fi mu toll nii moo lëmbee réew mi wàllu ci yi mm-hmm. euh, nee na loolu moo tax làmb ji amul làmb euh, am sécurité du am policier du am gendarme du am dara loolu moom moo tax ñu mujj annulé boobule làmb nga xamante ni moo war na am foofu ca Mbuur mu nekk la nga xamante ni bi tamit metti na ci promoteur mm-hmm. mu nekk lu metti raw gàddu ko nag mooy Famara Sarr Famara Sarr moo jël raw gàddu ga ñu tegoon fa li nga xam ne moom mooy fukki nag ak li nga xamante ne bii mooy ñeent fukki junne la ñu tegoon foofu ca Marlooj Marlooj nag ku ko xam-xam ne dëkku làmb la ku ko xam-xam ne dëkku séeréer la te séeréer ku ko wax mënoo koo génne ci làmb mu nekkoon euh, tournoi ba nga xamante ne bii tournoi bu neex la Famara Sarr moo ko jël mbër yu bëri nekkoon fa mu nekkoon ñetti fan ak 72 heures la woon làmb ji 72 heures la woon mu amoon ñetti drapeau Famara Sarr moo jël li nga xam ne mooy drapeau bu mag bi. te noonu nag fee lañ jëm Sambe su ma juumalee Jurbel la nekk. Jurbel dëkk Boy Niang boobu noonu ko jël rabu gàdd nag mooy ki nga xam ne mooy Njool Tafatin moo gañe waaw digganteem ak Diourbel Sambé juróom-ñaari kilomètres la 7 kilomètres de Diourbel euh, ki nga xamante ne bii mooy Aliou Sène borom say jaamaana production moo fa tëggoon tournoi tournoi tournoi euh, bu neex ba nga xamante ne bii julli la woon ba ca suba sa. ki nga xam ne moom mooy njool tafaatin moo fa daan xeeru Jurbel ci combat ci final bi neex final ba nag euh, amoon euh, ay woykat yi nga xamante ne bii macha allah Mariama Jàkkeer ak yaayam yaaram ñoo ko doon woy wante doomu Baabu Ngom bi moo ko doon tëgg bi moom moo wax dëgg yàlla torop yëngal nañu saabe ñu gis cosaan génn aada génn li nga xamante ne bii moom mooy euh, làmb suqali ñu suqaliwaat ko ci diwaan boobu nga xamante ne bii moom mooy Sambé ñu ciy jaajëfal bu baax a baax suñu rakk jooju di Aliou Sène borom saa jaamaane production wante yemul foofu euh, bañ ca tegee ñetti fan tamit tëggoon na combat bu nekk foofu ci stade Ely Manel Fall mu doon dox ci diggante Boy ñaar bu Mbacké ak Boubou Thiaski Boubou Thiaski nag moom mujjee daan Boy ñaar ci jël ba nga xam ne amul benn werante ce noonu nag ginnaaw ba Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi waxee Ipo Nguer na moo daal di àddu ci beneen combat muy prévenir rek lion ba ci Guédiawaye di Balla Gaye numéro 2 nee na la bagarre n'arrange pas Balla Gaye 2 Bombardier par favori. nee na moom mooy favori ñu ne laaj ko lan moo tax mu ne moom moo daanoon combat bi jàll. Mhm. te moo li nga xam ne moom mooy avantage ci combat bi ñu jëm tamit. Mhm. parce que buy ñëw mën na ànd ak tranquillité am mën na mën na xaar ki nga xamante ne bii moom mooy adversaire mën na combat enjeu bi ci ki nga xam ne mooy gone waaye gi lay ëpp mais nee na nag combat bi comme ni mu koy waxee dóor mu daanu mën na cee am dóor mu wàcc nee na mën naa am ci li nga xamante ne bi mooy combat bi ndax ñoom ñaar ñëpp ay attaquant lañu ay xeexkat lañu te bu ñu dajee lu nekk war naa mën a am ci combat mu nga noonu nag ca noonu fan jëm journal Les Arènes ka mi xam la ci journal bi nag mooy la muy xam le ah. les champions de la lutte simple envahissent la frappe maanaam mbëri simple ya ah. ñu ngay buuba dem ci lutte avec frappe waaw ñu mën cee jàpp ku mel ni ibu ay Obli ah. jàpp ci ki nga xamante ni mooy Cheikh Tidiane Niang Doudou Sané ak Grand Mbagnick ñoom wax dëgg yàlla gis nañ ne ñu ngi toj mbapat yi ba pare ku ci nekk am na combat ci combat dóor yi mooy lutte avec frappe ku ci nekk am nga ci combat euh, ki nga xam ne moom mooy Abou Ndour nag nekk fële ca euh, les arènes loolu duggule ci làmb ji ndax bu ñu xoolee ci gannaaw tuuti ku ci mel ni ki nga xamante ne moom mooy Doudou Bakassar ak Robert ñoom defoon nan lu mel noonu. bu ñu xoolee ki nga xamante ne bii mooy Yékini tamit gannaaw ba mu tojee mbappat yi bi mu duggee ci. Euh, arène bi daf koo toj. ñu mën cee jàpp ku mel ni Reug Reug Franc ak yeneen mbër yi nga xamante ni bii ñu ngi ci biir làmb ji nga xamante ni bii jaar nañ ci bëre mbappat bi ñu duggee ci arène bi wax dëgg yàlla ñu ngi wane seen ay preuve kon mën nañoo jàpp ne képp ku jaare ci bëre simple boo ñëwee ci bëre bëre bëre dóor bi day gën a yomb. day gën a yomb noonu la daal koy jaajëfal bu baax moom Mbaye Babacar loolu moo nekkoon li gën a fas ci xibaaru làmb looy tàggatoo li may tàggatoo jaajëfal la jaajëfal la suñu caméraman Bilal Ndiaye eh, ci eh, liggéey bu rafet bi nga xamante ni bii mi koy def di jox suñu mbokk internet yëpp di daje incha allah suba ak jàmm ci beneen revue de l'arène jaa ngeen di leen jaajëfal bu baax a baax sant cant ak gërëm gi ñeen na leen di leen kontaane leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen waaye di sant sama équipe technique bi ah Bilal Ndiaye Diatta kontaan ci yow bu baax a baax Leewtoo TV cat ba cat commencement fe nee na bu leen fàtte bis mag bi le 8 août Tafatine Boy Niang bu doon kenn nettali ca arène nationale ca arène allah duma lay combat bu rëy combat bu neex wax nga ko Leewtoo production ñoo ko taxawal euh, nar ci àndi nag li nga xamante ne bii mooy ay surprise ci jour combat bi surprise nag buñ ko waxee luy bette lay doon duñ ko wax dañuy bàyyi ba jour jour ba ñu ñu ñu ñu ñu amateur yëpp gisandoo ko gisandool ko seen bopp waaye daal Tapha Tine Boy Niang di ngeen gis loolu leen mësta gis ci làmb di sant di gërëm sama yaay booy boobu di Adja Sara aji danga koy bëggee bu baax a baax sama yaay bopp bi dama lay kontaanee bu baax Ndeye Mbacke Diop xeebu ma benn yoon xooloo maa ngi liggéey xooloo liggéeyam yaa ngi toppatoo sama yaay comme si que sa yaay la te sa mag dong la dama la ci di la ci gërëmaa ah, Adja Seydi damay bëgg ci yow bu baax a baax jaajëf ba ëllëg incha allah ci Leewtoo TV Taphatine attention. ñaar Sa Thiès xeex nañu ñoom ñaar Sa Thiès na ko mot na ko ñoom ñaar jël na Taphatine dóor na Taphatine ngi dóor ci suuf. attention Sa Thiès ak ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw